aco sama gars yi gars yi seen bii seen bu bees la bon ko a yàggul ñu ngi ñaan kuy gan ci pass bi nga abonné partage yokku ñu doole gars yi soer nga xamante ni moo di Garnacho tey match bi nga xamante ni nii Manchester United doona ko amal moom mii nga xamante ni moo di Garnacho marqué na ab bii kon Garnacho mii xale la boo xamante ni nii am na avenir de te yoon wii nga xamante ni nii jël na ko bu ko bu ko bàyyiwul laa la wax nii joueur bii nga xamante ni moo di idolam di Cristiano Ronaldo lim def ci football moom mii nga xamante ni moo di Garnacho mën na ngaa def que xale la te am na talent am na fit bii bu rafet la marqué tey jii te Garnacho mii am na place parce que poste bi nga xamante ni moom la Chris doon football moom mii nga xamante ni moo di Garnacho moo fay taxaw léegi te mi ngi wane boppam kon Garnacho mii xale la de. ñi ngi koy ñaanal nag jaloor yi nga xamante ni mi ngi koy def mu wëy parce que xale bu am avenir la gars yi équipe bii nga xamante ni moo di FC Barcelone moom it gën naa dëggal boppam ci première place u La Liga bi parce que tey jii Villarreal la Barça door 1-0 ki kii nga xamante ni moo di Pedri moo dugal bii bi ci max boobu nag Pedri ak gafi doxal nan parce que ñaari xale yi nii ñooy yaakaaru Barça ñooy avenir u Barcelone ëllëg parce que ay xale lan yoo xamante ni am na talent top gars yi ci match boobu noonu kii nga xamante ni moo di teer sa gën doxal na ci match bi parce que def na fi ay génn na fi ay balde bii yu neex balde doxal na Pedri doxal na Gavi doxal na nekkoon na match boo xamante ni nii match bu neex la gars yi bii nga xamante ni moo di Manchester City mi ngi gën di jige Arsenal parce que fi mu toll nii deux points trois points la Arsenal rawe City kon mën naa ne course baa ngi daw de waaw wow te bu fii ak championnat bi jeexagul kenn jëlagul première ligue bi instant yi ñuy toll trois points la ko Arsenal rawe kon City gii <laughs> mi ngi dëggal boppam moom it te weekend bi nga xamante ne nii mi ngi ñëw City Arsenal ñëw war a daje kon nag match boobu dina nekk match bu neex gars yi bi nga xamante ni moo di Lyon <laughs> dafa dóor tay Reims parce que <laughs> kii nga xamante ne ni moo di Amine Sarr nekk doomu Sénégal ak Suisse football na ci match boobu gars yi ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé